Il était question pour nous de venir ici à Rufisque, accompagner de Malik Sen, responsable de la fondation Salallahu Ala Muhammad, euh, remettre à, au de la prison pour femmes de Rufisque des dons en nature, entre autres, composés de, de poulet de chair, euh, des sacs d'oignons, des sacs de pommes de terre, euh, des packs d'eau, euh, du vermicelle, du macaroni, entre autres, et des papiers hygiéniques que le président Cheikh Alassane Sen, président de la fondation Sallallahu ala Muhammad, a bien voulu mettre à la disposition de ses détenus. Euh, comme vous le savez, ce programme qui est inscrit euh, dans l'agenda social de la fondation euh, consiste à soulager euh, la population carcérale euh, pendant la fête de la Tabaski et la fête de l'Aïd el Fitr. Euh, le régisseur nous a reçus. Euh, nous lui avons donné le message du président. Euh, elle nous a également fait part des conditions de détention très difficiles, c'est à imaginer, pour sa population carcérale. Et... Mais vous savez aussi que le président Cheikh Alassane Sène a au cœur de sa préoccupation la problématique des conditions de détention et de la condition féminine en particulier. C'est la raison pour laquelle il avait tenu à insister à ce que ces denrées soient amenées ici pour soulager ces populations, euh, cette population carcérale. Parce que vous le savez, les moments de privation de liberté sont des moments extrêmement difficiles. aussi bien pour l'homme qu'à fortiori pour la femme. Mais nous avons trouvé des femmes euh, qui sont conscientes de leur situation, mais qui sont restées dignes dans cette épreuve euh, cruelle euh, que qu'elles traversent. Euh, mais nous leur souhaitons euh, un retour euh, dans leur domicile respectif et également une réintégration réussie dans la société. Euh, kon dañu ñëwoon rek tey fii ci turu président Cheikh Alassane Sène nga xam ne moom moo jiite la fondation Sallallahu ala Muhammad comme ni mu koy defee at bu jot euh, ci prison Ndakaaru yëpp ren nag mu ne prison Tëngéej bi nañu ñëw indil leen ay poulet mu nekk ay poulet ay dons yu mu indoon di ko composé di ay poulet ak ndox ak pomme de terre ak soble macaroni vermicelle ak même ay papier hygiénique donc pour jàppale population carcérale bi nga xam ne ñi ko composé ñëpp ay jigéen lañ yu euh, ñu ñëwee directrice bi euh, registre kilifa kër gi dalal ñu waxtaan ak ñun wax ñu tam ci yan conditions yu metti la ñu nekk euh, mais ñu ñu gis ñu nekk ay jigéen yu nekk ci lu metti mais jigéen yu am jom yoo xam ne ñu ngi traversé avec philosophie épreuve bi nga xam ne moom la ñu la ñu nekk di traversé donc programme bi dafa nekk rek déroulement wu programme bi nga xam ne ci agenda socialu fondation bi la bokk euh, parce que président dafa jàpp ne at bu jot léegi li mu daan def feneen yëpp léegi daf ko concentré ci dans les lieux de détention de liberté donc muy kaso yi tey looloo ñu indi woon fii ci Tëngéej ñu ñëwoon indi ko fii kon di joxante rendez bu rek xam naa ba tabaski ak jàmm incha allah